ayca mbokk yeeg xarit yu yi seetaan solution TV solution info ñëwaat nañu beneen yoon ginnaaw bi ñu leen yoo yéen ñi nga xamante ne ni yéen yéen a ñuy suivre à travers solution info ñu ngi leen di ziar bu baax a baax suñuy soppe ñi nga xamante ne nii rek ñooy bàyyi xel solution TV tey nag ñëw nañu ci seen émission bi di émission des émissions émission ci biir émission yi tey nag ci beneen format ngeen fas yéene si ànd ak Sandiogou Mbengue ak Madjiguène Diop yéene waxtaanee ay sujet yu baree baree bari daañu ànd ak yéen ci li nga xamante ne ni moom la kàddu yi Maodo Faye doon yëkkati fële ca Sud FM ànd ceek Nicolas ak si la buñ ca noppee daañu ànd ak yéen ak ki nga xamante ne ni moo di El Malick bu fu ñëw na nag jàkkaarloo bu mu amaloon fële ca Walf TV ak Moustapha Diop jafe-jafe yi nga xamante ne ni Pastef mi ngi koy nekk di dundu jamono jile ñu noppi ca nag ànd ak Tunkara bu 2STV moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci Pastef fii ba tey waaye nag balaa ñuy door waxtaan wi dañuy daal di nuyu ki nga xamante ne ni rek moo di Alaaji Sanjoogu Meng maa ngi lay jox kàddu ki di la ziar. ma jigéen ñi ngi lay fay di la nuyu di la ñaanal jàmm di am mbégte ak kontaante <coughs> waaw tey yaa ma dalal ci l'émission des émissions <laughs> euh, mu nekk loo xamante ni bii lu am solo la macha voilà mu nekk format bu bees mais mm-hmm. aussi tamit euh, ñuy ñaan yàlla barkeel ko amiin yaa rabbi waaw di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ni bii ñoo nekk ci xarala gi mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi mm-hmm. mais aussi tamit di nuyu sénégalais yi nekk bitim réew di am ci ñëpp mbégte ak kontaante macha allah macha allah euh, ji comme ni nga ko waxee rek beneen format la nu mu gën a yaatoo rek xalaat yi daal di dikk alaaji Sanjoogu Meng faram fàccee ko ba mu leer naññ euh, comme ni ma ko waxee rek Modou Diouf dañ koy daal di dooree ak ki nga xamante ne nii moo di Maodo Faye nekk journaliste fële ci 2STV moom nag am na kàddu yoo xamante ni nii yëkkati na ko jëmale ko ci euh, Pastef ak doxalinam rawatina seen jiit bii di Ousmane Sonko moom nag ma ngay xamle jafe yi nga xamante xamante ne nii euh, peut-être suite beauté mi ñu doon faral di wax ne moom moo jural euh, Ousmane Sonko yi problème problèmes nañu dem xooli ko daal di dellusiwaat ci bile plateau. histoire dana ko mos a nettaliwaat ci réew mi maanaam Ousmane Sonko moom marqué na histoire du Sénégal ba pare te fokk mu nekk ci suñu ci suñu archives yi fokk ñu bàyyi politique am ci wàllu réew mi waaye nag fokk ñu dellu ginnaaw itam xalaat bu baax a baax gis nga 2014 bi nga xamee ne créé nañ lii nga xam ne Ousmane Sonko créé na ko muy parti politique immédiatement dafa tàmbali indi benn programme bind benn téere tudde ko solution maanaam saafara réew mi dem ba ci place de l'Obélisque mu exposé programme bi nga xam ne moom la am en politique il y avait problème muy waxtaan ci wàllu koom il y avait pas problème ba mu doon def révélation yi après ñu dàq ko donte dàq nañ ko ci inspection parce que yam doon wax tamit njariñu réew mi la ndax yu ci bëree bëri nit ñi xam ko te nañ ko bañ a xam waaye gis nga mbir mi Nicolas boo ko xoolee ba xool ko ca cocc lépp aji saara ko non mais gis nga dëgg neexul. Mhm. parce que bu bu ñu yemoon ci acte politique bi rek. lii la oustaz oustaz nga baal ba. Oh. démb dafa am benn maire bu may wax pour wax la rek tolluwaayu kenn ku nekk. maire bu màgget laa lay wax nii de suñu maam jooju ñu koy ñaanal bu baax a baax oh, xam nga ne lii bu ko yëgoon maire bay wax de bu ko yëgoon guddi boobu du dem foofu noonu ah te parce que pour moom jàpp na guddi boobu noonu waaw moo indi mbirum tëdd prison bi maire boobu wax na dëgg caxat googu moo law ba yegg mm-hmm. ah, mm-hmm. wax ma la wax du ay mag ko naax xam nga que dafa doon wax waxu yërmande quoi mais xam nga ne doom lii bu ko xamoon guddi boobu du dem foofu mais moom laa fi waxoon waxoon benn bis na bu fekkonte ne bàyyi woon nañ ñaari sénégalais lambda rek ñu atte seen bopp ak lu Ousmane Sonko mën a toll ñoom seen bopp ñu dem tribunal kenn bañ cee dugg mën naa bañ a yëg ndax mbir mi dafa dem a dem ba mu yàgg caxat gi di law di law di law ba mu yàgg di def ay wax ñi nekk ci waa di génnee ay xabaar ñi féete ak euh, di génnee ay xabaar ji bi mel na tulleeg màlle ba mu yàgg ñu ciy dugg ay ñu ciy tudd ay directeur de société du ci tudd ay gendarme yu ñu dàq du ci tudd ay atte yu ñuy renvoyé di ko renvoyé waat ay menace di ci am danañ ko jàpp duñ ko jàpp nang nangam ak nangam mais lépp ci problème Sweet Beauté la tàmbalee gannaaw ba nga xamee nag lu jiitu Sweet Beauté boobule kenn ku nekk mën naa jàpp ne Ousmane Sonko dàqoon nañ ko lu jiitu loolu mu nekkaatoon un problème crypto personnel entre moom ak président Macky ndax booba kenn dàqu ko Macky Sall ko dàq léegi nag sax am nañ wax nañ fii ne mën nañ ko affecté mën nañ ko nangam ak la mu juraat mars 2021 ba suñ joon yàlla tey jii lii résultat la ci ay Aïcha jërëjëf Modou Diouf comme ni mu ko waxee rek alaaji coow li coow li suite beauté la parce que gis nañ Ousmane Sonko ci ay début am doon na dem euh, tranquillement euh, te doonul woon am benn jafe-jafe mi ngi tudd sax livre bi mu bindoon muy solution mise à part radiation bi nga xamante ne ni président Macky Sall defoon na ko waaye bi ñu duggee ci problème suite beauté bi ci la coow li déclenché indil ko ay jafe-jafe alaaji. waaw jërëjëf euh, ma jigéen di nuyu bu baax Maodo Euh, aussi mu nekk journaliste boo xamante ne journaliste bu mag la. Euh, joxe gis-gisam xam nga lii moo neex ci pénc mi maanaam nit ki euh, boo joxee xalaat ba pare nit ñi aussi tamit dañuy am sañ-sañu joxe seen gis-gis ci sa gis-gis loolu nag comme tey jii ñun ni ñuy toogee di wax bu ñu waxee ba pare am na keneen koo xam ne peut-être ni ñuy waxee gisee na ko neneen mu bokkut tëgg li nga xam ne noonu la joxe man dama jàpp ni. boo dégloo ci biir wax ji hmm. Nicolas bi nga koy wax ne ko am na soxna soo xamante ni da ko wax ne ko guddi googu bu demutoon ba noppi boo dégloo Nicolas nga xam ne moom comprendre na ni du loolu mooy problème bi façon bi mu waxee hmm. parce que mi ngi naan soxna soosu moom pour moom loolu la après ci la Maodo Faye jël ne ko loolu mooy mbir mi après Nicolas comme que moom day kii rek après da ko bàyyi mu continuer hmm. mais loolu du mbir mi li Maodo Faye jàpp ni mooy mbir mi euh, li tax ñu dàq ko impôt loolooy mbir mi maanaam yëpp après mbir muy continuer la léegi nag bu ñu ko bëggee yemale defe ne ci Sweet Beauté la pour loolu problème day am parce que Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ni euh, dañ koo dàq dafa nekk impôt yu domaine di liggéey mhm. ñu raje ko dégg nga ci biir kàddu gi Maodo Faye nee na Macky Sall la ko dàq lu tax mu dàq ko c'est parce que li muy wax daf leen a déranger du dëkk mm-hmm. yeneen yi nga xam ni xew na ci diggante bi loolu yàq der la maanaam yàq deru nit ki bu ñu demee ba tuumaal ko viol yàq der nit la xam nga pareen saa da ngay dégg ñu ne la mm. Ousmane Sonko de euh, nuñ ko piégé te moom moo fa doon dem dangay dégg ay nit ñoo xamante ne bi loolu lañ wax dañ lay wax ne la Ousmane Sonko bu fa demu doon moo fa doon dem mu mais nit ki mënuñu laa piéger foo nekk foo demul fi ngay demee fa lañ lay piéger mhm. parce que foofu la ñuy jàpp ni faay am na fii ñu créer ay yoo xamante bi ci loolu lañ koy créer mhm. te ndaw si ci jëm ba xam nga dafa am foo xamante ni euh, nit ñi ñoom seen xel dafa war a ubbeeku mhm. que ni dépassé nañ yenn yi parce que dafa leer ci bëtt nit ñi te àtte bi ñëw wax ni viol bi ñu doon wax amut euh, menace de mort existé wul maanaam li nga xamante ni moo taxoon yóbbu ko dañu koo jël dàq ko teg fële kon Ousmane Sonko li mu waxoon ci njëlbeen ga day am raison parce que bi mu ñëwee ci njëlbeen nga daf ne complot la fi ñu yegg si nii yëpp tey lu mu waxoon la ne mbir yi fii la jëm donc loolu nekkoon na loo xamante ne bi ay kàddu la yoo xamante ne bi yëkkati woon na ko ci jamono maanaam dafa. nit moo tax nit ñi nga xamante ni gëmoon nañu Ousmane Sonko ci njalbeen gi maanaam du ñu am gàcca mukk ci li nga xam ni mooy mbir mi parce que li tax duñ ci am gàcca mooy que ni bi ñu ko gëmee dañ ko gëmoon noonu rek am na ñoo xam ne dañ ko gëmoon noonu rek mais dañu dem ba ci biir ay éléments di wàcc yoo xamante ni bi tey ba dégg ndaw si moom ci jëmmi boppam mu wax ab audio hmm. wane ni viol amut ba noppi wëlbatiku ne dama doon fo laa loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li garaaw ki nga xamante ni ki mooy ndey mbilli gi moom bu demee ba nga xamante ni bi nee na viol amut kon booba la wax ji waroon a jeex bu fekkonte ni bii rek ci lu normal la ñu ne mais alaaji est-ce que ñoom itam amu ci amuñu lu ñu bëggoon seen objectif maanaam atteindre nañ ko parce que bu ñu teggee viol bi ak euh, menace de mort yi indi nañ ko ne ko da def corruption à la jeunesse waa amuñu ko parce que li ñu bëggoon mooy nit ñi gëm leen du Ousmane Sonko de nit ñi gëm leen loolu mooy li ñu bëgg lii yëpp ñu arrivé bul jàpp ni lu ñu bëggoon la déedéet li ñu bëgg bu lenn rek la mooy na leen askan wi gëm ci li nga xamante ni moom lañ teg ci Ousmane Sonko loolu nag la askan wi gëmut moo tax a chaque fois du ñu am satisfaction ci li nga xamante ni fi la yëf yi fi yëf yi toll parce que li tax du ñu am satisfaction ci fi yëf yi toll mooy li ñuy bëgg mënta ne maanaam li ñuy bëgg mooy nit ñi gëm li ñuy wax te loolu la nit ñi dut gëm donc loolu mooy li nga xamante ni bi mooy problème bi parce que tey ci jamono ñu toll nii ci instant bi ñu nekk nii bu doon ñoom amoon nañ li ñu bëgg bon benn problème daa am parce que bu boobaa bu nit ñi accepté woon avalé loolu rek daal ne waa Ousmane Sonko violé na dañ koy bàyyi parce que nit ñi bu ñu gëmoon rek dañuy bàyyi Ousmane Sonko mais tey la nit ñi gën a bëgg ki nga xamante ni ki mooy Ousmane Sonko kon boobu problème am na voilà d'accord euh, léegi alaaji yaa ngi wax ne li ñu bëgg amuñu ko mais aussi ñoom jàpp nañ ñenn ñu bëri jàpp nañ ni seen objectif mooy dugaloon ko kaso te tey aussi gis nañ ñenn ñan <laughs> ñenn ñi nga xamante ne nii peut-être ñoom ñoo ne waa ah, ji mooy ñi xam nga xam nga tey affaire yi affaire yëpp leer na la euh. Euh, xam nga tey am na koo xam ne moom ci mbir mi moom jàpp na ni moom su Ousmane Sonko duggee kaso jeex jeex na hmm. am na ko xam xam nga tey man damay wax ne moom laa doon wax sama benn waay ba ne ko président Macky Sall joué na dernière carte mooy xob bi nga xamante ni bii amatul beneen xob maanaam mënatul a tegati Ousmane Sonko leneen lu weesu fi mu nekk. d'accord waa léegi nag Ousmane Sonko yor na ay carte carte yi Ousmane Sonko yor nag te kii jeexal na ay carte maanaam bu ma la ko doon wax tey ci riinu xam nga riin yi di nga seetaan pareen saay Euh, ñuy mbéjante. Hmm. man damay jàpp ni kon président Macky Sall mbéj na ba pare Ousmane Sonko léegi taxaw. <laughs> léegi nan la war a def <laughs> léegi moom day xaar. d'accord <laughs> waaw. jamono ji ñu toll nii fi mu toll nii foofu la yëf yi toll. waaw fi mu toll nii moom joué na cartam yëpp. léegi nag yi lan mooy ay carte Ousmane Sonko. Hmm. loolu mooy li nga xamante ne bii mooy problème bi ubbe ub bopp bi parce que ñoom fi mu toll nii boo xoolee buñ la ko waxee buñ la ko waxut seen bopp dafa ubbu. Hmm. moo tax ñu ub bi. bu seen bopp ubbiku woon rek ñu ubbi internet bi mais le fait que ñoo ubbi internet bi moo lay wan ne seen bopp dafa ubbu xamuñu yëf yi fu mu toll. xamuñu yëf yi fu mu toll dañuy desandi ba tey ci parti boobule di Pastef ndaxte El Malick moom nga xamante ne ni ñëwoon na fii ci Walfadjri jàkkaarloo ko Moustapha Diop ñuy wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ni ñu ngi koy tekk parti bile di Pastef ba tey jii du solution bi ci am nañu dem xooli vidéo bi te lu si waat. campagne 2019 gisuñu fi ñi yabal ay gendarme ñu dem dugg kër yaay Sonko di loolu xewoon na fi. ñu génn weddi ko qu'est-ce qui s'est passé euh, justice au niveau de de Ziguinchor. Mm-hmm. confirmé condamné gendarme bi. ñu def suñu meeting Kër Massar. ñu rey fa suñu benn militant. Mariam Sagna waaye ba fii ñu ngi xaar justice am. ñu fekk suñu siège. ay xale yu ndaw nekk fa permanencier ak photographe. ñu envoyé fa ay band ñu dugg fa ay nervi mm-hmm. ak seen i jaas yi. kayaase siège bi. xale ya fa nekkoon tëb daw génn ñi jaxase siège bi comme pas possible. plainte Mariama Sagna plainte yëpp ñu ngi ci table justice. ëpp na cinq baaraam sax pour ne da koy leeral justice bii ñuy wax nii mhm. mais li gën a doy waar mais suñu tourné campagne ñun bi ñu dugg Fatick waa Fatick dañ leen a woon ne leen ñii buñ duggee Mbour duñ fa génn mhm. ñu dugg Mbour ñu ñu jéem ñu attaqué ñu néewal leen doole jàll dem Fatick laataa ñu yegg Fatick suñu militants yi di nekk Fatick mhm. ñu fekk leen foofu waa APR yi gaañ leen damm ci nit gaañ ci ñu bëri gars yi nañu buñ dugg bu leen dugg Fatick ndax wóorul ñu dem dugg ma koy nuyu de passage mm-hmm. dem seeti hôpital ñu fa blessé woon suñu siège fu ñu dem attaqué nañ ba ci biir Fouta te yëpp image yaa ngi fi suñu suñu caravane te moo ne boobu ñun tooñuñ defuñ kenn dara lu dul indi un projet sénégalais adhéré 16 septembre ñu lancé suñu euh, livre solution vision ñëw indi benn programme boo xam ne sénégalais yi gis ci seen bopp mu créé un déclic xanaa ñoom ñu war a dem góorgóorlu ak lañ am ci état yëpp ak seen PSE mën a ñëw indi teg ñaata yoon lañ dégg président Ousmane Sonko défier leen ne leen yónnee leen seen i ministre seen état ku ngeen mën mu ñëw ñi débat ci programme ci vision ngeen xam ne seen lii day nasaxal Sénégal waaye du ko développé bu ñu bëggee développé Sénégal fii ak fii la ñuy jaar Pastef lu xew mu bind joxe ci wàllum pêche immigration clandestine transport accident yi tout dans les débats dans les télévisions pratiquement télé boo ubbi da fa gis ku nekk Pastef ñun loolu indi Aïcha mi ngi noonu euh, El Malick expliqué na ko ji mu mel ni parti Pastef euh, depuis mu sosu ba tey ci ay jafe-jafe rek la ñu nekk est-ce que da ngay koy appuyer ci li nga xamante ni nii wax na ko euh, comme lu ñuy dund mu nekk lu metti ñoom ñu jàppee ko acharnement. waa li mu wax ay fee la maanaam lu ne fàng la loo xamante ni kenn du ko jeex maanaam nekkut loo xam ne lu mu sos la lu Sénégalais yëpp gis la ñu dund ko. parce que ñun ñëpp dañu nekk ci biir réew mi mm-hmm. euh, di gis li nga xamante ni bii xew na li xew ci parti Pastef moom mooy li nga xam ni moom la waxaat parce que li mu wax yëpp tey yow mii xam nga ko te gis nga ko Pastef nag euh, il faut mu am problème mm. waaw parce que ñun dañu tàmm ay politiciens yoo xam ni dafa am nu ñuy doxalee ak askan wi. Mm. am noo xamante ni bii noonu la ñuy politiquer mu am yu daganut ci dund normal mais ñu di ko def ci pencum politique bi mais boo waxee dañ naan la lii politique la politique mooy nga am sañ-sañ ma ànd ak yow jekki-jekki affaire yi doxut ma génn wàcc la daa dee dem fële bu ñu waxee ma ne c'est politique maanaam ki la dàq politique buñ ñu koy doon xool tey ki la gën a bari pexe mm-hmm. ak ay njuuj njaaj ak wërale loolu mooy politique Pastef nag daa dee ñëw indi beneen forme politique ñu bari gis ci seen bopp mu ñëw naxantewut ak sénégalais yi ñu amee benn discours boo xamante ni bii tey lépp lu leen dal loo ko teg mais lépp lu am looloo leen ko may muy ban discours discours boo xamante ni bii jàkkaarloog sénégalais yi. bañ a naxanteeg ñoom comme li fi fa daan faral di am bu njëkk ba dangay gis ni politiciens yi dañuy ñëw digg nañ ñu fi ba digg ñu fi ay robinet damada yoo xamante ni bii da ngay ubbi dem nañ fi ba dig ñu fi ma jigéen fii ci réew mi dégg nga kuy wax ne seen sareet yi sax ngeen ciy def ay frigo yoo xamante ni bii ngir muy seddal li ngeen lekk di ko dig waa kaw gi maanaam façon dige bu ne bu caaxaan bu ne dig nañ ko askanu Sénégal Pastef ñëw soppi li nga xamante ni bii mooy mbir moom. mais est que du loolu mooy seen erreur yi. waaw loolu non loolu mooy li normal maanaam tey lu normal maanaam dafa yóbbu gars yi ci débat xam-xam. Hmm. lii laa bëgg a def ñu ne la nii noo koy defee nga ne lii nii laa koy defee nii laa koy defee bind livre. solution parce que am na ku ma dégg keroog mu ne euh, gars bu njëkk ba dañuy bind programme boo xam ci ñetti fooy lañ koy def bu ñëwee sànni la ko ne la mooy programme pour réew mi. Mhm. ñii ñëw bind livre nga gis yitte gi nga xamante ni bii jox nañ ko ne solution dal ne lii mooy solution pour réew mi jox ko nit ñi ngir ñu liir ko jàng ko pour mën a xam ni kii kat ñi def lii defuñu ay caaxaan maanaam bi ñu yóbboo mbir yi foofu ci la li nga xamante ni ba noppi nag daal di jël ñele wan leen ne leen ñii ñooy système bi ñoom ñu ñëw ne anti système lañ mhm. ni nga xam ni noonu la yëf yi di doxee du noonu loolu ñu teg moo waral li ñuy sibiir ñu koy sibiir coono bi ñuy daj li nga xamante ni bi tey moom la ñu teg moom moo koy indi parce que tamit mënut a yomb parce que système bi ma jigéen euh, dafa neex te système bi boo jàppee ne homme politique yi kese la mm. yaa ngi nax sa bopp système bi ñu bari ñu ngi ci biir ba ci ay journaliste mm-hmm. ay comédien mm-hmm. non y' a ci système bi c'est que dama la bëgg xam ne la. système bi boo jàppee parensaay yi nga gis nit di wax. ci wàllu kii nga defe ne nit ku neutre la mu toog di analyser. moo xam muy chronique walla moo xam muy def dara. Mm-hmm. mais de c'est ngi lijjanti ay mbiru boppam maanaam di làqar ci ay mbir mm, léeg-léeg nga gis léeg-léeg nga gis nit di def même ba ci imuur di imuuree loo xamante ni bii tey li muy imuur dafa am lu mu ciy laxas mm. maanaam si loolu mooy li nga xamante ni bi mooy lii dem parce que dafa am noo xamante ni ñooñ système bi noonu la ñuy doxalee ak képp koo xamante ni kii tey mm. yaa ngi ci eh, mbir yi bëgg tamit doxal comme ñoom am na noo xamante ni bi noonu lañ lay peegee ak noo xamante ni loolu nga xamante moom la Ousmane Sonko laal fi mu toll nii maanaam ñi mu mën menacé seen ak ëllëg moo bari. moo tax jafe-jafe yi il faut que mu bari. parce que am na koo xam defoon na ne demoon na ba defee ne sax bokku ci mais day dem ba ci biir ne lii kon bu amee ndekete lii ak lii wëlbatiku génn ci parce que système buy soppeeku faw mu am ay jafe-jafe parce que politiciens yi kii defoon na ci jàngat bu am solo. Euh, sëñ am sa mbàkke sëñ as sa mbàkke mës na ci def jàngat bu am solo nee na yi. Euh, bañuñu nag wi dee waaye bu deewee nag ku ne am naram loolu lañ bëgg maanaam ñooñ système bi loolu la maanaam na ku ne am ñu sedd la mu ne mu daal ne Ousmane moom daf ne moom bu nag wi dee hmm. nañ ko wàcc defar ko bu ko defee muy kii ñu koy ratt di ko séddale ñi nga xam ne ñooy askan wi mu leen di jariñ ñun ñëpp hmm. loolu mooy li nga xam ne moom mooy différence entre ñooñ système bi ak anti système hmm. moo tax nag anti système nag pour mu installé wu ci réew mi mënul yomb faaw mu am ay pakk-pakk ak galgal yoo xamante ni dina am parce que ñiy dund yàgg dund ci système bi depuis 1960 ba léegi ma jigéen mu am benn système boo xamante ni bii moom lañ fi teg nga gis tey Sénégal rek ngay gis politicien boo xamante ni bi fal nañ ko ministre tey mm. biñ koy fal wallaahi billaahi am na ñu bari ñoo xamante bi ñu daan ñëw fii ma leen di invité ñuy def émission ataaya yàgg nga ko wax kay amuñu sax dàll yu normal waxuma la ab oto mm. waaye léegi ay milliardaire lañ système bi di doxantu di ndaataata la <laughs> ñoo xamante bi ngay njëkk a ñëw jàkkaarloo ak yow dama jàpp sax ni wéruñu mm-hmm. tey jii ñu ngi ci loo xamante bi ci alal kenn mënu laa wax mu toll. Mm-hmm. yu mel noonu nag mm-hmm. buy am ngay gis xale yi di daj li ñuy daj ba noppi ñu naan nañ tee xale yi fu ñu leen di téye xale yi ñi nga xamante ne bi tey jox nañ leen bu ñu leen joxee xaalis sax ne leen fexe leen liggéeyu ndaw yi ñu këpp kees nga lekk ko. xale yi amatuñu yaakaar. loolu nag nga xamante ne bi nag moom la Ousmane taxaw. wax ne kat système bi daf fee war a jóge moo tax jafe-jafe yii muy dund faaw mu dund ko mënul ñàkk il faut jafe-jafe dal day am waaw dañuy desandi sax si jafe-jafe yi ba tey parce que yaa ngi ko dégg mu ngi wax ne euh, plainte yi nga xamante ne po porté woon nañ ko ngir euh, seen euh, siège yi nga xam ne dañu dem yónni fa ay missile ñu saccagé ko leneen li mooy Mariama Sagna mi jotoon génn àdduna en 2019 ba léegi nii mi ngi ci table bi te justice si benn côté mi ngi wéy di dox parce que ñi ñu bëgg a jàpp ñu bokk ci parti Pastef ñu ngi leen di jàpp ba tey waa xam nga li jëm ci moom lépp lu jëm ci Ousmane loo xamante ne bi lu la moom dañuy gis gis ni moom day gaaw lépp loo xamante ni jëm na pour ñu nappaaje ko moom gis nañ ni moom foofu moom efficacité bu extraordinaire mm-hmm. waaye le contraire moom tamit la ñuy gisaat ci wet gi lépp loo xamante ni bi ñoom def nañ ko ngir justice taxaw ci gis nañ ni tamit lu yeex lay doon waa illa kenn du ko toppatoo mm. loolu moo lay wane ne la rek système ak anti système ñoo fi ne <laughs> moom dafa ñëw promouvoir anti système mm. wane ni bokkul ci lii mm-hmm. waaw mais ñi nekk ci lii nag ne ko nag lii nag ñun ñooy ñu ko yore yëf yi nii lay doxee. poster yi ñuy commencé di di dajji. waaw xam nga dajji poster. Mhm. loolu du dara. loolu loolu loolu du dara. dajji ay poster xotti kii loolu du dara. Euh, yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bii parce que am na loo xamante ni bii kenn mënu ko dindi parce que ki kiy dajji poster ko am lu ko naqari du ki koy taf parce que ki nga xamante ni ki tafoon na poste kooku fi mu toll nii jóge na ci posteer yooyu mi ngi ci xolu nit ñi. nit ki bu nekkee ci xol mënoo ko fa dindi. wax na ko sax ci biir émission bi moom El Malick. Mm. nee na pour xoos Ousmane Sonko dindi ko ci xolu nit ñi loolu moo mënta tane wala dindi Pastef ci xolu nit ñi loolu moo loolu mooy li leen di jàpp mm. maanaam bul jàpp ni ñiy def lii ñoom ñi ngi am lu leen neex de mm. lépp lu ñuy def boobu lañ moom parensaay da nga war a yërëm nit xool nit di def benn affaire di ko def di def yenn affaire yi. pareen saay bul yërëm ki ñu koy def mais yërëmal kiy def loolu. kiy def loolu parce que xam nga lu tax. Hmm. parce que li muy def yëpp saa yu xëyee rek da ngay gis ni amut lu ko neex ba tey doyalugut day gën a def kon ba tey amut satisfaction parce que bu amoon satisfaction am lu ko nu ko neex day dem toog kee di naqarlu génn di kii mais ba léegi da ngay gis ni. Hmm. Euh, jàpp Ousmane Sonko ak jàpp plus de sept cent et personne personnes terewut ba nëgë ni kii mi ngi continuer di am saa yu ñu xëyee ñooy def actualité saa yu ñu xëyee ñooy parce que mhm. loolu mooy li yàlla def mhm. xam nga dafa am loo xamante ne bi suñu borom moo ko def li sunu borom def nag kenn mënu ci dara. déedéet mbiru suñu borom la. mbiru sunu la ayca dañuy daal di dem nag euh, euh, wax ci ki nga xamante ne nii moo di Tunkara bu 2STV moom itam dikk na euh, ci Pastef nee na nag erreur yi ñuy def tey ba tax ñu di dissoudre seen parti bile ñoom ñoo ko teg seen bopp ñu dem xooli élément bi dellusiwaat. dugg tey si politique njaaxu mi ñiy def li ko waral mooy amuñu xam-xam mhm. euh, benn misaal rek tey gis nga Pastef dakkal nañ ko mhm. parce que dafa am ay erreur yoo xam ne li ko waral mooy ñi si neewoon seen xam-xam dafa des mhm. xam nga euh, ku mel ni Birame Souleye Diop saaga bu mu saaga président saaga président Côte d'Ivoire yooyu ñàkk ñàkk xam-xamu état nan lay doxee ak relation internationale nan lañ ko war a gérer te loolu dafa yaatu jërëjëf euh, Modou Diouf alaaji yaa ngi koy wax léegi ku am xam-xam ak kuy joxe programme daf la indil livre te en général da nga daan gis politiciens yi trois pages lañ lay indil est-ce que ku ñàkk xam-xam di nga am temps pour bind livre boo xamante ne ni solution ngay indi pour Sénégal. waa xam nga Tunkara moom euh, ci li wax ni li tax mu neex. Hmm. Euh, dafa ñëw ci xam-xam wane ni Pastef amuñu xam-xam. Hmm. Euh, amuñu xam-xam euh, Pastef bokk na ci parti yi mujjee juddu tey ñu nekk chef de l'opposition loolu ku ñàkk xam-xam euh, munu ko tey jii Pastef wër na àdduna doole ji nga xamante ni bi moom la am yéem na nit ñi loolu ku ñàkk xam-xam mënoo ko na wax ni moom li mu jàpp ni mooy xam-xam ak ni nit ñi war a doxalee Pastef dafa jaar ci yeneen yoon yoo xam ni moom xamu ko parce que Tunkara euh, bu ñu jëloon moom moom mi am xam-xam moom Tunkara ku am xam-xam <laughs> nest mais Tunkara xamul ni bu duggee ci politique ah. moom bi muy dugg ci politique kon waroon naa mën a natt ba xam ni buy dugg ci politique dina mën a am député moom Tounkara dugg na ci politique nattoon na boppam ba jàpp ni xam na ni fi mu toll nii kat askan wi wóolu nañ ko et pourtant bi mu demee askan wi wóoluwuñ ko mhm. amul député mhm. pendant ce temps xam nga àddina moom am na lu bari loo xamante ni bi ñu bari xam nga lan moo leen rattrapé maanaam am nañ départ bu baax nit ñi ne nit ñu baax lañ nit ñu jub lañ mais temps avec le temps ci la ñuy mën a xam pareen saay nit ñi moo tax ñu la wax ne la bul gis nit rek wala mu def benn intervention wala mu wax leen rek nga ne wuu sa waay kii la wala kii ku bëgg réew mi la. Hmm. Sénégal nag dañuy tombe ci piège yu bari lu mel noonu te Sénégal nag war na nekk askan woo xam ne war ta tombe ci yenn piège yu kii waruñoo gaaw a tam-tamal nit yëkkati nit. mais Alaaji est-ce que ñàkk xam-xam bi waxeewu ko ci par exemple mu ngi tudd euh, Birame Souleye. Euh, waaw insulte yi nga xamante ne nii jotoon na ko def si président bi. ak xam nga moom Pastef d'abord la wax ko quoi maanaam daf ne Pastef amuñu xam-xam. Hmm. ko ne bu ne woon Birame Souleye amul xam-xam ak Pastef dañoo ñàkk xam-xam hmm. parce que Birame Souleye li mu wax. moom la engagé te amul waa Pastef ñu bari partagé wuñ ko ak moom yaa ngi dégg bi mu ko waxee it dem na jéggulu ci du dëkk loolu du lu waa Pastef waxtaanee ba mu wax ko ay wax waxi boppam la n'est-ce pas léegi nag boo jëlee yow wax jooju nga bëgg koo attribuer parti bi loolu mooy wane ne yow sa xam-xam des na parce que war nga xam ni mm. loo kooku bi muy wax noonu yaramu tàngam ak ay kiiwam moo tax mu daadee xuus wax loo xamante ni bi waru ko wax mais bul ne parti bi amuñu xam parce que parti bi teg nañ loo xamante ni bii tey ci diir bu gàtt dinosaure politique yëpp dox nañ ci seen kaw. kon bul ne amuñu xam-xam. donc loolu bu fekkente ni da nga ko wax pour neexal ñenn ñi pour xas ñenn ñi. loolu aussi tamit day am. donc mais Tounkara moom wax dëgg fa yàlla nekk na nit koo xamante ni kii am na fu ko sénégalais yi tegoon démb. Mm. sénégalais yi nag Tounkara ñëw na indi woon benn style bu bees. ñu topp ko bi ñu ko toppee ba topp ko mu bëgg a jaay monnayee loolu bi mu ko monnayee la ko sénégalais yi ba boobu la war a xam ni sénégalais yi tamit foofu moom ful la am nañ ko fa mhm. tey jii li may toog fii di wax mhm. sénégalais yi bari di la bàyyi xel bu subaa bu ma dof dof loo ba defee ne man mii mhm. ñii maa leen moom ñi may seetaan nii maa leen moom ba fu ma leen diri ñu jëm ma jéem a wax yeneen wax yoo xam ne boobu ci saa si lañ lay jubbanti mu nekk loo xamante ne bi lu am solo la parce que gis nga loolu dafa am solo nit ki euh, bu njëkk politiciens yi xam nga dafa amoon bataille électorale looloo amatul maanaam ñoo xamante ni bii bu njëkk ba fooy dem yóbbu say nit. léegi loolu moo amatul. ci lañ lay Ousmane Sonko mii. Uh-huh. moomut ñii mu àndal ay nawleem lañ ay nawle lañ ko def. Mm. moomu leen. Mm-hmm. yaa ngi dégg tey jii am na décision yoo xam ne wala yenn xalaat yoo xam ne bu ko bëggoon a def sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoo ko fay ba wuti keneen. xam ni kii nekk nekkatut ki nga xamante ni kii moom lañu war a topp mm, c'est que léegi il faut ñu xam ni sénégalais yi léegi gis-gis lañuy ñuy topp ak vision mm-hmm. bu leer ci ñoom ñu topp ko mais pas nit ki mm-hmm. dañu gis ni nag kii nag ay discours am ak ay waxam ak jëfam ak démbam méngoo na parce que démb c'est très important Tunkara mm-hmm. dafa jekki-jekki na lay xaw ma ko ci tele bi laa ko xamee du dëgg <laughs> xamuluma ko lenn ci démb ministre conseiller la waaw mais dama ne dafa jekki-jekki ne cëpp nekk ci télé bi di wax li ma xam ci moom bu ma ci génne ci télé bi xamuluma ko leneen déggoon naa xaw ma nekkoon euh, Amérique ci diaspora bi et cetera mhm. waaye mais wax dëgg fa yàlla xamuluma ko ci lenn xamuluma ko fa lu ñaaw xamuluma ko fa lu rafet xamuluma ko fa dara mais li ma ko xamal ci télé bi daal mooy toog na di wax sénégalais yi di ko bàyyi xel mhm. di ko déglu mhm. di rafetlu ay discours am mu jekki-jekki nekk ci ginnaaw président nekk ci ginnaaw président sax du euh, du loolu di mama que la nga xamante ni bi yaa nga ko war a wax yaa ngi koy wax mm-hmm. waaye ba mu fa nekkee dafa mel ni moom soppiwul président mais président ko soppi mm-hmm. xam nga li ma la wax maanaam mi ngi mel ni tey man mii ma nekk ci kanamu président nekk ak moom mm-hmm. xëy xëy soppeeku mais laaj doo gis du nekk daa am prix nag. non non non non am na lu amul prix. loolu loolu ñi koy wax mooy kii rek ñoo koy wax am nañ loo xamante ne bi amul prix. ma jigéen alal day jeex du dara. du tus am na loo xam ne boo ko xasee ba jaay. Mm. perdre nga ko te doo ko amati ilaa yomi diin. perdre nga lépp ay ca mi ngi noonu ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ba beneen aljuma. waaw di gërëm ñëpp. di joxante di daje beneen aljuma incha allah rabbi ay ca mbokk yi mi ngi noonu yéen ñu doon suivre di ñu bàyyi xel wéy leen di abonné ñu jaajëfal ko nag moom du Diouf Abdou Top lay jàllo ñu daal di nuyu nag euh, suñu directeur programme bi di son bi Diop di jarbaat ci Moustapha Diakhaté ay nuyu dégg nga di leen jox di jajee beneen aljuma incha allah.